ku kool li mu doon jëmee mooy képp ku kool da ngay ñaanal aji dem bi te nga bàyyi naan lañ leen jaale fiw ñu leen jaale fiw. Ah, ok. nit ñi nañ bàyyi jikko ju bon gi ñu yore. ok. His Excellency li mu def si dëkk bi gis nañ ko ñëpp nañ ko. Mm-hmm. te soo gisee ñu ñëwoon ko jàllee His Excellency bi ñu meloon ak El Hadj Modou Sanyang. waaw. yéen a ngi wane clip si. foo mm-hmm. ko gis ci ndeyjooram El Hadj Modou Sanyang mu ngi waaw loolu nag kum naqari yàlla moo ko def. Mm-hmm. jërëjëf nit ñi nañ nga seen njorta. ok. baax na excellence si kum neex mu fi kum mm-hmm. baax na baax na jërëjëf. ni mu bàyyi seen xel ci yenn yi rafetul te ba ci tiis la ba ci naqar la. wallaahi. waaw bu ñu di politicize certain issues. baax na. baax na fi mu nekk ñu ngi ci ah, ah, ñi ko jaajëfal rek. Mhm. comme ni nga ko waxee. Mhm. waaye eh, xel yee. du emut waaw xel yee mhm. emut. Ah, ku nekk gis-gisam. waaye boo gisee. ñuy sukkandiku di wax ne kuy kuy ko am tiis tey mhm. his excellence yi mhm. moo am ni meloon na moom ni meloon na moom dëgg la ndig tey fi mu nekk mu ngi mel ni tey ayda mhm. euh, su ma tële woon dinañ ne waay kanay xaritam kana ko gën a jege dëgg la waaw nañ leen seeti kooku ndax mu mun ci dara looloo tax foofu lañ ko waxee yëpp ci kaw liggéey bi la ko doon def bëggoon na ko toppa na ko waaw ñu am fi suñ beneen jigéen ñun mi woon njaboot tamit xiiroon nañu ci ñu ờ, am fi nag ñu ko waxee rek Ramatoulaye ờ, Diallo ñu jël ki ci laaj bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum aha hello hello bismillah bisimilah kooku fan naa network am bi baaxul xam naa mu jéemaat Ramatoulaye ñu la laa jaale tiis wi nga xam ne ñoo ko bokka Eh, ñun seede woon nañ ne ndeysaan El Hadj Modou Sagnang sa xarit la woon daan nga kaf moom lool eh, ñu jaale la liñ bokk yow tamit. ah Anta jërë ah, si yéen digaale yooyu mm-hmm. ah, El dafa nekkoon koo xam ne dafa mel ni lay suma pa. Mm-hmm. man suma pa dafa teel a gaañu ah, fekk maa ngi tuuti waaw ma ñëwee dama gisaat suma pa. Mm-hmm. si nit koo xam ne. dafa bëgg a njobootam suñ ne njobootam mooy mboolem koo xam ne bokk na si moom. Mhm. bokkuloo si moom sax xamut la sax su la gisee daf laa for daf la comme doomam alaay Modou dina indi añ au office bu nekk kaale ñu añ fekkee ne moom du lekka sax waaye na staff si lekka kontaan na si alaay Modou Sagna soo defee dara loo xam ne waruloo koo def du ñëw rek buur sa ko daf laa oo ne la kaay lii ak lii ak lii ak lii defee ko ne defee ko ne kon nag ñun tey suñ papa moo moo gaañu duñ ne suñ boos waaye suñ papa moo gaañoo. Mm-hmm. waaye foog naa am nañ kenn si laaj bi. asalaamaaleykum bisimilah. maaleykum salaam. bisimilah. ah Aïda. naam. ak Sow Ndiaye. Mm-hmm. ah Aji Ndeye. dëkk bi dëkk bi ACS yi ñoo ko moom. Mm-hmm. am nañ naxar trop. te am. dañ dem sa naaw bu sërës benn dafa am ñaari dëkk yoo xam ne alaaji amu waate ak Mour Sagnane. ah ndeysaan waaw waaw. kon nag tey tey képp koo xam ne am nga naxar président Jammeh moo la dina am naxar. président Jammeh am na naxar APRC am nañ naxar képp koo xam ne yaa ngi APRC di buggoo APRC bugg a APRC te ñaari bi yëpp a dégg. kooku kuy wax nag dafa xamul li moo wax. ku gis la ka itam ak ak Sadio. Mm-hmm. ñoo bokk ndee baay. Mm-hmm. ñun fii ñu toog ñu ngi lay jooy because man seeti naa ko ci lopitaane docteur Mbow bi. Mm-hmm. ma fekk fa jabaram. voilà ñu. ñu mun ma su ma parkee la ñu am. fii ma restaurant mobilier yow ko bokk ñu woo ñu ñëpp ñu am naxar di ko jaale ñëpp.

gërëm ko sant ko. Mm-hmm. Uh, waaye xanaa ñaan uh, seetaankat yi rek. waaw waaw tey bési tiis la. ñu bañ a tontu Fatou waaw ñu bañ a tontu. waaw uh, ñu jaale. Mm-hmm. rek waaye ramat jéena ba am na. ramatulaay ramatulaay. Mm-hmm. waaye ñu bàyyi ko rek mu jekkali. am solo comme ni ma ko doon waxee El Hadj amoon tur ma ko joxoon naan ko Godfather. lu tax maa ko doon wax góor faada mooy comme ni ma ko doon waxee dama gis ma ko si moom. alaaji Modou Sagna rus naa ko woo alaaji Modou Sagna. da ko woo góor faada rek mbaare diji comme ni ko nit ñi yaatu na. baax na am na taraanga. pare am na daf bés mu nekk daf laa yooka. alaaji Modou Sagna dafa mel ni like mento la pour ñun. ñi nga xam ne ñu ñoo mujjee ñoo ji RTS ah, di ji nekk na koo xam ne. Abdou Touré mun na maa beya witness moo alaaji mu amut saa yu nekk rek dafa oo ne taaj leen ci booram di nekk ni koo xam ne tey yaakaar naa ne dégga la yaayuma ma boppa waaye yaakaar naa ne malayka yi sax ñooñu ko gën a soxla fu mu nekk ne mhm. malayka aljana yi te di ko ñaanal nag njabootam gi mbàyyi fii muy GRTS muy ñi nga xam ne ñi nekk si kër gi am mboolem gambien boo xam ne mu ngi seetaan rek na bokkaa ñun tiis bi te xam ne ñaanal ko mun ngaa jàng sa benn fatiya teg si lixlaas fukki fukki lixlaas ak benn mhm. waaw Euh, ñaanal ko rek suuf seddee ko ngay def loolu euh, am na solo euh, sol comme ni nga ko doon waxee rek mhm. alaaj Modou Sagne mun naa doon koo xam ne royuwaay la ci ndaw yi ndaxte koo xam ne ñu ngi ko jëlee liggéey mu doon masinja mhm. nga xam ne muñ ak góorgóorlu mhm. moo tax mu toog ba jiite place bu mel ni GRTS ba yàlla def mu noppaleku te ritaaya boobu mu def itam wéradi moo ko ko tax a def waaw waaye su wéradi wutoon benn tey mu ngi gën a góorgóorlu continuer di ñu jiite waaw loolu moo tax nag eh, ma ànd ci li nga wax ni digga digga te rax ci doole sa Aïda na nañ laajte moom mu ngi ritaaya 2003 mm-hmm. ci décembre mm-hmm. lan a tax ñu jëlaat ko jox ko contrat am na ku nekk ci line bi asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. waa ngi sa télé bi tuuti ñu digal. aji aji may. waaw man la aji may. sigil ko liñ mbokki alaaji Modou Sané mhm. alaaji eh, Sow naam Aïda Ramatoulaye li xanaa ñu mun a muñal ko yàlla rek mhm. nga alaaji Modou Sané ku wàcce boppam la woon ñu ngi ñogee liggéey ak ci RTS seventeen years ren mhm. waaye awma dara loo xam ne dinaa ko wax fi ne alaaji Modou Sané mu sonn nañu koo def ci mun a xariñu yéen ñëpp am ngeen yow Aïda mi waaye Alaaji Modou Sadiam am yombalal nañu liggéey mm-hmm. weeri koor bi maa ngi fàttale ko moom maa wax ne ajaamaay wax naa aji ay ga jóob te weeri koor bi yëpp bugga naa mu nekk programme yi tiina mm-hmm. moo tax ma am yaakaar te yàlla suñu borom dina fay Alaaji Modou Sadiam si liggéey bu rafet bi nga xamante ne la def ci GRTS moo mm-hmm. leen kilifa diina bi nga xamante ne mu ngi def programme ci GRTS muy diina l'islam muy diina christian defe naa bu waxtu bi jotee bu bés bi jotee ñun ñëpp dañ ci am suñu cër. Mhm. te mu tudd say comment xanaa mu ñoo encourage rek. Mhm. léeg-léeg sax bu gisul sama programme dafa ma dee xool mu laaj ma lu xew. Mhm. loolu moom lu jafe la alaaji ma bu sax ñaar ñoo koo ñaanal digga digga digga nit ku baax la woon. Ah, waaye képp kuy dunda rek dina war a dellu si boromam ndax yàlla moo wax ne. kullu nafsin zaa'iqatul mawti

Mm-hmm. ngeen jël bés bi yëpp di ci seet ay alquran. Mm-hmm. waaye tamit ubbi line bi pour nit ñi nit ñu baax mm-hmm. di ci commerce ay da yàlla na leen fay. amiin jërëjëf programme yi diina yi ba démb guddi daara ji di nga def Alaaji Ousmane